ki jàmm fidèle internaute BP Actu point com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen su nekk ba tax na nag tey ci xët yu njëkk ya dañ koy ubbee ak li nga xamante ni rek moom moo nekk actualité ci jamono ji ñu gis ne ay gone yu ndaw yu toll ci ay huit ans jëm kaw dañuy faral di faat seen bakkan ci anam yoo xamante ni doy na waar lool ba tax na weer bii ñu nekk gis nañu ñett cas yoo xamante xew na ci ñetti bërëb yu différent ba ca jiitu mi ngi xew woon ca diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn gone gu toll ci juróom-ñetti at di wuyoo turu Mamadou Lamine Aydara dafa génn ci suba gi di dem boutique ba ci ko benn waay dabee ni nañ ànd ci tabax boobee téye loxoom di ko forcé ci la tàmbalee tamit jël paaka di ko jamate ba deret ji sangu ko mu tëraloon ko ngir daal di tàkkale boppam ak baatam waaye suñu borom tuddoon na ni bakkanu Mamadou Lamine Aydara warul yem foofee ba tax na gone ga daal daal di trouver force ba rëcc waa joojee daw ginnaaw ba ñu teewee sur les lieux tamit nag gis nañ ni ko doon def xeetu ñaawteef boobee waru woon a sori ci alentour yi ndax description bi gone ga joxe takk dere ci la ñu daal di basé wu ba civilu euh, sol ay yëre yu sagare teg ci tamit nag yor oto boo xamante ni sagare na ngir mën koo teg loxo ca na mu gën a gaawee ginnaaw bañ ko tasaaree euh, ci réseaux sociaux yi ba noppi teguñu ci ak diir nag tey ñuy xëy di ñu yëgal ni ki doon def xeetu ñaawteef boobee euh, takk der yi daal dinañ koy euh, teg loxo ginnaaw ba ñu basé woo ci description yi Mamadou ay dara daal di euh, joxe ci la ñu daal di civilu euh, dugg ci biir askan bi bañ koy jàpp tamit dañ koo fekk en flagrant délit mu yoroon paaka di topp ay gone yu jigéen ñooñu di daw mu leen di dàq ngir mën leen a ci bâtiment bu yàqu bi mu dendaloon bañ ko tegee loxo ba noppi Aliou Diallo di yëg la ni moom li mu def teyu ko day faral di naan ba màndi waaye saay bu màndee rek daanaka dañ naan ko demal nga fàtt bakkanu nit wala nga dem dem jege ji ay xale yoo xamante ni tout tànk la ñu def leen loo xamante ni dina metti lool takk der yi nag kontaan nañu lool ci li nga xamante ni moo di liggéey ba moo tax askanu Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ñu ci bari dañoo demoon naa ca commissariat ba di a tàccu takk der yi nekk foofe ngir remercier leen ci ni ñu gaawee retrouver kii nii di Aliou jàlloo daanaka trois jours lañ ci tegoon kaaw ante Ndiaye euh, bu Bargny daal di am askan bi di ko méttudlu euh, te ñu waaye boobu tamit euh, heureusement ba yoon daal di nay teg loxo ak ki def boobee xeetu ñaawteef. démb nag beneen fee mi ngi am ca diwaanu Rufisque ak gone goo xamante ne moom tamit tout tànk la ci juróom-ñetti at dong lay toll ay woy juróom daal di koy yónni boutique ba ñu toog as diir bu yàgg teguñu ko ba ci la seen xel tàmbalee ñaaw ak li ñuy faral di gis ci réseaux sociaux yeeg site internet yeeg yeneen ak yeneen ndaw ngir mu dem seeti ko ci lañ ko fekk tamit ñu tëral ko ah, ci benn ah, batiment boo xamante ni yeggul doon préparé ngir faat bakkanam ah, te ki doon faat bakkanam ci anam yi gën a ñaaw la ko doon defee ndax dafa téye ab mool ci loxoom doon ko dóor ci bopp xale bi naka noonee rek lañ ko daal di yëgal way juróom bu góor mu sol lam dem sur les lieux ginnaaw ba ñenn ñi taxawee ngir defal xale bi ba mu bañ a perdre connaissance jur bu góor bu xale bi nag dafa daal di takk ay dàllam rek di daw di daw ba keroog muy tekk loxo ki doon def ñaawteef bi ba mu ko téyee tamit jot na kaa musal ay laa taa takk der yi ak sapeur di teew sur les lieux bañ ko tegee loxo ba noppi li mu njëkk a yëkkati comme ay kàddu moom 22 ans la am. waaye dañoo ubbi saak ba mu yoroon fekk fa ay soutien gorge yoo xamante ni yu xale yu tout tànk ñoo koy faral di ko utiliser ay ciseaux ay puso ay paaka ak yeneen ak yeneen yu nu mel 22 ans donc mu daal di dugg ci euh, coow bu nu mel da doon def ab sacrifice am déet en tout cas bañ ko gëtëmee ba mu sonn ci la daal di joxe numéro woy juróom bu jigéen ngir que mu daal di ñëw rek xeetali ko ak ah, ci situation yi mu nekkoon lu wétawul mooy jamono ji woy jur bu nekk war nga mën a redoubler de vigilance ndax gone yu ndaw yi la ñuy faral di faat seen bakkan rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp toll ci 6 ans jàpp 7 ans 8 ba yegg ci 10 ans jamono ji ñoom ñooy faral di dund ay violence lu ci mel ni viol lu ci mel ni agression ak yeneen ak yeneen yu ni mel ñenn sacrifice yuy faral di am la à chaque fois que élection jub si rawatina élection législative yi nga xamante ni daanaka ay fan yu néew dong moom moo ci des te li nekkoon ca diwaanu Bargny daal dinay firndeel ni des fois du ay sacrifice élection waaye nit yu leen gën a jege ñoom ñooy faral di def situation yu ni mel lu ci mel ni kaaw Anta Ndiaye bi daal dina koy firndeel Euh, ci lu ñàkk fayda lañu ñu daal di euh, faatee bakkanam ndax bettoon na waa ji faat bakkanam mu doon def naka sudul noonu ak benn cousinam euh, tey jii nag jot na parent bu nekk gën a protéger waat sa doom muy ci yoonu école bi muy boo ko yónni muy dem boutique ba ak yeneen ak yeneen yu ni mel ba tax na mbokk yi li leen leen indiloon ci seen xibaaru analyse jox leen di daje ba beneen yoon incha allah.